mbër gàlle yaay mbër yaay mbër gàlle yaay yaay mbër fooy fanaan

Touré jàkkaarloo nii. ñaan ñaan Hey, ñii ñu si yoon bi a fekkal tamit jàppale leen ma bu dee mbëri la amul

Lamine mooy mooy gàtt ba tey bi aas ndax soo mel tey bi na aas am na xaalis te pour waxal la 30 juillet 2023 léegi mën naa léegi gars yi dafa dafa baax na dafa la lima ñëw gars yi gars yi maa ngi jégalu ah léegi naa léegi naa oto bi waay oto bi del dégg waay tout est possible. déggu ma. kon dama laa buux kay. dama la dóor. non garaawul yow affaire la rek. dama nga yàlla de yow eh, dama la buux dama la dóor yow. coow jiwul. mais eh, yow kii lu muy wax nii man moom jaaxal dama ko yow fu ma la dóor yow. maa ngi taxaw eh, mel ni jox leen jox maa ngi dóor. la gal la yaay mbër gal la yaay mbër gal la yaay su gal la yaay mbër gal la mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan